ginnaaw ba 11h jotee ba tegal euh, euh, nga xam ne tey mooy dernier numéro bi ci aljuma ji 11h la jàpp midi ñu ànd ceeg yéen mbokk yi xarit yi xam ne ña nga ci Facebook bi ak ci mboolem émission yi nga xam ne ñu ngi ko fi def ñaanal bu baax Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem jëwriñ ya koy jàppale ca liggéey ba jëwriñ Serigne Khadim xam naa ni dana ko séddale ca kër ga boutique la solution moo leen di gunge ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne yéen a koy amal fii ci euh, solution TV naka noonu calpe di calpe bi wóor calpe bi baax calpe bi nga xam ni lépp luy sécurité mi ngi ci biir ci wàllu càcc gi nga xam ne lenn ci sénégalais yi ñu ngi koy arnaqué mbooleem transfert d'argent bu génn dinañ ci jéema a xeltu ut ci xam-xam jéem cee naxe waaye KPA bi moom dinañ ko fi bàyyi ndax si suivre la neexu kii xam nga Assane Messe rek classe Bawol gi ma dëkk moom dañ naan defal ma ci rek sa date de ko defee boo ne jàkk Assane jàpp ni 1982 la 83 85 yooyu nga daal di ko cay dabbus daal di ubbi yooyu waaye nag amul ci KPA KPA moom 6 la moom looloolu nag mooy jaaxal saay saay exact si ci kanam tuuti incha allah dinañ ci ñëw alaaji Sanjoogu Mbeng xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke ca Touba di xarit ci Serigne Daare alaaji maa ngi laa nuyooti. sooy ngi lay fay di la kontaan ci yow. jaajëf di dem ba Touba bu baax xalif général des mm-hmm. ko ñaanal mu yàgg daan ak wér. Mm-hmm. waaye di di nuyu sunu Serigne. Mm-hmm. sunu xarit Serigne Sidi mu Serigne Abdoul Ahad Mbacke Mbacke Balla. ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. amin di ko ziar wér nuyu baax sëñ Xaadim Fall na jëkkër ga ak njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm. Mm-hmm. di nuyu Serigne Abdou Karim Mbàkke borom Makaarimul Axlaaq di nuyu kilifa dina yeewu ci biir réew mi. Mm-hmm. lew nañu seen mbir na bàyyi Tiwaawan Njaasaan Laayeen cene ba àndulaay di nuyu waa jaamal nuyu Bamba kër Mamelane jigéen ca Thiès. Mm-hmm. di nuyu sunu mbokk jàngu bi. ñi ngi nuyu di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy teewlu day taw xanaa ngi nuyu ci ziar ñëpp ñi nga xam ne bii ñu ngi ñuy teewul ak fu ñu mën a ne. Mm-hmm. di am ci ñëpp mbégte ak kontaante. voilà El Hadj Modou Diouf ak euh, Abdou Top. Mm-hmm. ak Mouhamed Seck ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. waa di wax ni KAPA nag li nga ci wax loolu la macha allah. mu leen di gunge ci émission bu mag bi di wax ni jaay ko ci biim réew. mënatul a jafe lu tax Sénégal jamono jiñ toll nii ñëpp dañu xëcc jëm ci patriotisme bëgg seen réew. KAPA nag. doomu réew mi moom ko mu wute lool ak ñeneen ñi loolu kon yaakaar naa ni rek tax na sénégalais yi jël ko def ko seen yëfi bopp daw leen wutali ko télécharger ko te it di ci def seen transaction ni ko son bu wax sànq ci wàllum euh, code ba si chiffres la di loo xamante ni bii ngir gën a yokk sécurité te mën ngaa tibbee ca sa yeneen kalpe def ci sa kàppe te tamit mën ngaa envoyé keneen koo xamante kii sax mm-hmm. yorut kàppe mm-hmm. nga kon kàppe dong mooy ki nga xam ne moo ko man macha allah sukkuraan kàppe ca kaw ca kanam ku ñuy wax seex Fall nee na ndékki kilo mburu moo leen te tardeel kon Fall yow lay wax ndékki kilo mburu moo leen tardeel <laughs> moo ko wax Cheikh Fall loolu yow sa veer yi tey di wax mbokk yëpp nag nañu xaar ndékki li ci kanam ca euh, solution humour alaaji solution humour suba insha allah bala ñoo jeexal sax dinañ lancer <laughs> message boobu suba programme yëpp dina door ca nañ ko waxee woon mm-hmm. waaye ci kanam tuuti gannaaw émission bi daw leen ca TVSA te suba ak jàmm muy tudd mm-hmm. solution humour ci kanam tuuti ndékki laa nga fa Assane Mesere am na lu mu defoon alaaji démb suite bi lan la lu xew insha allah di ngeen ci mën a seetaan ci kanam tuuti bu ñu paree ayca Baye Assane Mesere asalaamaaleykum waaleykum salaam war may dugal waaw baax na dégg nga. tey tey nag Assane tëyëram bi teg na ko ci temps. waaw waaw Mayib la Mayib Seck la Mayib man la. muy booy la parce que nag kii na ko ah, maanaam Assane ci boppam mbagg yee bañ rek. waaye yëriñ mbagg yi teg ko bàyyi son yi mbagg yi 14 raisons 5 continents mënu see tege. waaw mënoo wax ne 5 continents rek te bàyyi rek kii. non kon raisons nu mu tudd. am waaye woon nañ ma yëpp de waaye. kon foog fréquence bi gën mooy 97 point 0. waaw képp koo xamante ne li gën a neex mag ñi. Hmm. maire yi nga seen rajo ak ñi nga ni ñu ngi dox takk seen machine seen rajo. Hmm. di bay ndekete ñu ngi diglu pour ñoom sax solution dafa am rajo. mais rajo bàyyi ñëw incha allah solution FM solution FM si fréquence bu neex. fu ngeen mën a nekk sant Sénégal ak Sénégalais yi ñuy bàyyi xel ñu gën leen a abonné bu baax a baax te partagé te xam ne seen mbégte rek mooy suñu yitte bu leen fàtte baaraam bi taxaw bu leen fàtte commentaire yi kenn ku nekk lu mu bëgg a commentaire na commentaire ndax ki lay seetaan moo mën a commentaire la mu gis ki la seetaan yoonam nekku si ma yàlla sunu borom suturaal leen mm-hmm. ñi nekk si kaso yi yàlla génn leen ñi si hôpital yi yàlla féexal leen mm-hmm. waaye ñi génn àddina yàlla yàlla yërëm leen te may seen xol mu te teg leen si njub ak dëgg bañ incha eh, <laughs> ah, <laughs> allah dinaa la indil gone daara ji ñu wàccal ay kaamil incha allah. Sëriñ Taaw nee na say weer lan la. waaw moo ma jaaxal. weer kay mi ngi noonu rek. macha mbokk kon mi ngi noonu li nga xam ne mooy lef yu ñu bëgg a ci bu ànd ak dogalu borom bi. saa biit lu ma ci masaan soxla bu saa wàccee nga ne ma xaaral ma ñëw ah, ubbi bureau bi jox ma li ma soxla dëgg man ko rek ne ko ubbeetul waaw ah, ab sàcc nga de Assane déedéet li ma Assane kay ay mbiram jar naa sàcc la de parce que te bu may tëj <laughs> dem ah. kii tëdd nii mën na ko <laughs> moo tax booy bi fii yow damay wàkkilu ci yàlla rek <laughs> booy malee alaaj bi yéegoon àjji xale bi nu mu tuddati euh, booy boobu eh, xaw na fàtte naa tur bi mu defee jaloore jooju dafa am journaliste yi français ñu ko mosoon invité am ci koo xam ko laaj question bu pertinent mooy est-ce que lii c'est la première fois nga def ko. <laughs> loolu. <laughs> booy bi ne ko waaw loolu ay kii la. ak mbaax la rek waaw. ayca dem kon ci lef ñu fi indi soxna Mimi Touré mi nga xam ne mi ngi jubilé fu mu toll ak di bàkkoo ko def yëf bi euh, ginnaaw bi nga xam ne nee nañu euh, tànni fi mujj yi daal ci ay résultat génn na wane nañ ko daal muy assemblée nationale bi nga xam ne jàppoon nañu ni euh, benn bokk yaakaar moom moo ko gañe li mu génneegul daal kenn ci ñoom moomagul assemblée nationale ba. dinañ ci ñëw ci ab jàngat incha allah Déthié Fall nag nee na seen yoon nekkul ci li nga xam ni mooy eh, résultat yu mujj yi ñu joxe ndax tànn yu mujj yi nga xam ne doon nañ ko tànn ci yenn bureau de vote yi matagul ñoom na comme lañ bëggoon nee na defuñu ko dinañ nag eh, boycott li nga xam ne mooy la fay génne seen yoon nekku ci ñu joxe ñu ñàkk a joxe Euh, waaju xamadi jooju nga xam ni moo doon saaga président Sall nekkoon ci biti réew di ko tifaara ay saaga ba mu xëy ànd ak moom kenn xamul lu tax mu ànd ak moom nee na sarax biir Sénégal ba démb ñuus lañ ko naroon a ñuus lu xew ba ñu naroon koo duma gannaaw ba sànq saaga na journaliste yi saaga Ousmane Sonko ñu naroon ko faa ñuus ñuus yi méttee méttee méttee métti lu xew ba loolu amul loolu lépp dinañ ci ñëw bu ànd ak dogalu borom bi Assane kon tey jii loolu mooy euh, xët bi nga xam ne dañ ko waxtaane balaa loolu ñëw bi ab fenêtre bu ndaw rek ci tam xarit bi nga xam ni euh, incha allah altine la bu ànd ak dogalu borom bi euh, événement bi fi jaar nag Sénégal baaxoo na di sensibiliser parce que muy njaboot ga ci kër ga ak yow borom kër gi defe naa am na yu faral di xew ñu xam ne feet bi kat feetu jaamu yàlla la ci ki ko mën maanaam nag ki ko mën na toggal njabootam ci bés boobu ñu lekk am na ñoo xam ne ñu ngi koy feetoo di mitital seen bopp parce que nee nañ dafa am kenn ci sët bu yonent koo xam ne ci euh, bisu tam xarit lañ ko euh, doon lañ ko rey bisu tam xarit am na ñoo xam ne ci leen ni yàlla génnee ci li nga xam ne mooy ay xat-xat moo tax dañ ci sant suñu borom kon tam xarit gi ñëw def naa ni ñu sensibiliser ñu xam ne daal fi du lekkum cere kese waaw tam xarit de soo xeeb lu am solo la ñenn si Sénégal yi ñu ngi bëgg a rey tam xarit ndax tam xarit bu la fekkoon euh, ba mu dañuy nekk fële sa monde rural ba euh, yaakaar naa ne booy liggéey bu ngoonee boo liggéey da naa teel a wàcc bala ñoo reer wàcc waaw bu jant bi soree fépp cere yi xeeñ ñeex mu cur ndawal gi doy ñi sif ci rey amna ñeex yo xam boo sifé ma nga dem sa taatu bol ba amna ñeex yi xaar ci kaw ndawal gi ñu sëf ko ci bam fess tel nga lek lek lekk bay bëgg dé dem taaji bol waaw bu ko defee ngeen depp du ngeen genn kër ga bañ nekké fé ñun ñu genn ay depp lañuy def ay ay ñaan ñu yor seen kurus bu bëtt sét ñu julli sentu fatou matan eh muy fóot ak di wer yaa ngi dugg ci <laughs> je vois <laughs> xaaral ko ma dëpp léegi mbaa ma dëpp noonu. bu ah, rond-point bi waaw léegi. <laughs> rond-point Modou Modou yaa ngi ca rond-point Modou. non <laughs> ah, foofu dinañ fi ñëwaat léegi. Ah. fii nag dañoo yàq dañuy bëgg a yàq tamxarit. waaw tamxarit dañuy togg ay tufi ñu di togg ay macaroni ñu di togg ay salaat loolu tamxarit tamxarit cere la. ko tam xarit lu waay neex togg bu la neexee toggal soo bi déedéet waaye cere lañ war a togg ku fuñ ko wax ay cere nit ñi leer ba rek tam xarit moom képp ku toggut cere sa kër xam gis ni moom jour tam a dóor aw yaramam ba na rek ak jàng waaw sant yàlla la mais cere yi boo lekkee cere bu jour comme ni nga ko waxee noonu mën a ñaanee boobu ngay dàq ñaan nag si cere yi ngay lekk ba rek ak ñeex mu fat trek ak ndawal bu fekkee lékkoo cere rek xamal ni cere daa war a fanaan si sa biir loolu lu sa biir guddi tam xarit loolu c'est obligé c'est obligé si obligatoire. waaw obligatoire de. obligatoire mënoo ñàkk la. li nga wax moo gën a metti obligatoire waaw ah, moo gën a metti kay demal seeti DJ Prince moom dégg na France trop mu jàppale la hmm. aja kon noppi nga alaaji looy ci ci sam altina la de bu ànd ak dogalu borom bi waaw macha allah yàlla na dikk ak jàmm ñu feete ko ci jàmm ak salaam waaye di wax rek ne eh, tam xarit moom jigéen ñi la plupart ñittale li nga li asan di def nii moom moo sonal jigéen ñu bari hmm. maanaam nit ku ne defal la nga man jigéen ndakaar nag ñu ci bari dañoo mën ta faat nit ñi la ñuy def. Mm, parce que cere jël lu ne la lu ne lañ ciy def jël cere di ko tàndarmaak di di ko def ci ay raisin def naan ay haricot blanc <laughs> ah, def ci diw ñor def ci beurre yaa ngi dégg naan dañ koy bomba c'est que cere ji finalement day mujj nekk cere joo xam ni euh, danger lay doon parce que après tam xarit. da ngay jéggi ñu sama biir bi day daw ak. ma am problème mu biir ak dama liiw ak dama laa c'est parce que cere yi ñuy lekk moo dul cere lépp la ñuy jaxase maanaam dañuy jaxase mélange maanaam cere yi ñoom wutuñu ci neex rafet lañ ci wut na rafet lu ne ñu def ko ci cere yi pour ne nice na léegi nag ña koy lekk laa yërëm wallaay wallaay dañoo munul quoi. dina nga daj ko ci waaw loolu ñuy def nag euh, ki tufee ko tane waaw ki xam ne defub tufeem moo ko tane hmm. ki nga xam ne salaat la man mu defub salaatam moo ko moo tane parce que tere ci tamxarit moom amul fenn fu ñu ne cere ngeen war a lekk hmm. yàlla tëbaski danañu day leenub gàtt boo ko mënut nga def bi boo ko mënut nga def bële waaye amul fenn fu yàlla wax ne cere leen hmm. loolu mu amul cere nag aada la li sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si doon wax naan eh, Sénégal moom diina du fi daan aada loolu moom ngay gis rek am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def ci tamxarit yoo xamante boo seetee biddaa la. Mm-hmm. waaw yoo xamante ni. mais Serigne Taw nee na Saara bàyyil ñu bomb ko. Mm, voilà xam nga kooku nar naa sànq. te mu nekk Serigne Taw mm. waaw Taaw sànq. ma Taaw Taaw xaw ma fu mu koy waxee na wuti ji beneen cere <laughs> lekk ko parce que <laughs> Taaw am na problème. Mm. parce que kii di waaj a bomb léegi fi doon ni bëgg a bomb. Taaw am na problème en tout daal. li am solo sooy. te ñu koy wax mooy. Eh, tam xarit. Mm-hmm. am na ay xew-xew yu bari yu ci xew. te am na yoo xam ne ñu ngi ko ciy digle ya ca rafet mm-hmm. eh, di ko def baax na liñ naan la raay bopp jërim ak et cetera seeti ji eh, eh, nitu yàlla ak yooyu ziyaari ji ko mm-hmm. yooyu yëpp ay la yoo xamante ne bii nekkul luñ la forcé mm-hmm. mais yu baax la te it buñ lay naan la tamit defal nangami xulwaak yooyu yooyu yëpp yu baax la yoo xamante ne bii nit ñi ñu ngi koy def jàng yi ñuy jàng tamit yooyu yëpp yu baax la am na yoo xamante ne bii lu baax la yoo xam ne ñu mag ñi dugaloon nañ ko ci biir mbir mi di ko def parce que tamit folklore gi da ci dafa am beneen côté boo xam côté folklore gi mi ngi ci def ay mbir yi nag waaw def ku nekk góor rob jigéen sabadoor xam nga loolu yëpp euh, ci biir tam xarit dañ ko daan def d'accord mais avec le temps yooyu moom li su kii di wax yooyu mi ngi di di wàññeeku di fi jóge d'accord voilà xam sax li ñu tam xarit bett la waaye kon alaaj na leen ci may benn escarce bu neex ah. euh, loolu sax weesu mais kii sa bu mu taw sama lamb ji am suba yàlla bu mu taw ñuy soxor naan yàlla na taw. waaw waaw ah mu ne yàlla bu mu taw. bu mu taw ngeen ñaan ko yàlla bu mu taw. ma ne du ñu ko ñaan man maa man ñun ab nawet la ñuy ñaan. fii la toog naan yàlla na taw. di ñaan waaw maa ko dama ne dama ne mais damay ñaan nawet bi. mais dañuy ñaan mu taw mi ngi nii di taw nii. waaw dimanche la ñuy ñaan. samedi la làmb yi. waaw léegi kañ la fu la ne samedi suba la. làmb waaw dimanche loolu sax. xaw muñu bu mu ci làmb ji moom xam ne amul promotion làmb ji ñuy lijjanti ban bis la waaye na taw <laughs> macha allah kon mi ngi doon bokki loolu dañ ko doon ubbee rek muy feet boo xam ni euh, dañ koo gis ci Sénégal te alaaji wax na boobu dee euh, day def loolu pour génn ci parce que dee na billets yi fayut làmb léegi bu tawee kenn du dem léegi bu ñu bu dee billets yi fayut léegi moom mu daal dem ak xaw ma lan. pépé bi pépé mu daal dem pépé yow tamit xam nga wax loolu te waaw ñaan nga ko ñaanal kay yàlla na taw gi kay xam naa ne métti na ko trop. na taw. métti na ko sunu borom ñu ngi la koy ñaan. ay ca <laughs> macha allah. mbokk yi kon mi ngi noonu loolu lañ doon ubbee muy fête boo xam ne maa ngi gis ci ay commentaire ñu ni soaye bu euh, tamxarit du fête ci lislaam d'accord mais alaaji wax na ci biir wax yu am solo yoo xam ne jar na bàyyi xel bu njëkk folklore da cee amoon mbir góor jigéen am ci maanaam góor ñu sol yére jigéen jigéen ñu sol yére góor mag ñi nag bi ñu ñëwee dañoo xam euh, liñ doon def maanaam kar nit ñi ci ay ñaan dajale leen ci ëtt jël kurus di ñaan moo gënoon di tëgg ka fecc ka waaye di def ay yëfi góor jigéen ñii di jaar fee di sàcc ka def yëf euh, moo tax mag ñi ñu ñu ñu ñu am ah, xel même jirim bi nañ ko def vingt mille gars yi da nga gis ku yor ab juróom téye bopp jirim di si ñaan soxlaam <laughs> juróom ba bopp jirim sa bàyyi nelaw wala sa yaay ku mu raay sa bopp ay juróomi ki fukki dërëm ah. mairie moom lañ lay jox raay sa bopp bi ñaan seen soxla yëpp nañ ba loolu loolu ko koo jóg d' accord ay jo kon ñu dem directement rek ci euh, liggéey bi euh, waa ji hmm? ma ne ko aw jub jaay ak lay nuyu waaw keroog bi nga daan ma euh, ala sama waa ji waaw ah, allah kon ñu dem directement ci élément bi nga xam ne waaju xamari jooju nekkoon bitim réew doon saaga président Sall nag ba ni saraax ci réew mi Euh, yëkkati na tefaara ay saaga yu méttee méttee méttee méttee teg ko ci Ousmane Sonko journaliste yamu jàkkaarloo loolu Rési euh, su fekkee ni maa ngi gis ñu koy jeexee euh, lu tax ngeen ngi may jeexee yéen ngi koy jeex noonu maa ngi koy séen su dee pare ngeen rek incha allah ñu dem déglu ko moom waajoo ñu doon bëgg a lapp lapp yi métti ca kii ba non non pas décc voilà ñu dem assemblée nationale su fekkee ni élément boobu la pareegul kon moo di indil bi fi nekk rek. Chers camarades, nous l'avions dit, nous l'avons fait, nous avons gagné. C'est dans une ambiance indescriptible que la première dame et les leaders de la coalition Beno Bokiyakar ont célébré la victoire de leur coalition aux législatives. Après la proclamation des résultats par la Commission nationale de recensement des votes qui a donné majorité à la coalition Beno Bokiyakar, Aminata Touré, tête de liste nationale de cette coalition, félicite tous les partisans. La coalition Beno Bokiyakar a obtenu 1 518 137 et 82 avec une avance de près d'un demi-million de voix sur le suivant. La coalition Benno se félicite de la maturité du peuple sénégalais et de la solidité de son système démocratique. Par ailleurs, le mandataire de la coalition Benobok Yakar, Maître Ousmane Sey, affirme que l'intercoalition n'existe pas de nom. Rôle ñuy wax intercoalition bu ñu l'Assemblée assemblée nationale ay groupe parlementaire dañuy doon te dañuy tas tasse, mat lu mat ñeenti parlementaire bu Boba, bokk sax avec le jeu des alliances politiques mën appeler les ay député soxna Mimi Touré doon euh, addu ci turu bopp coalition boobu la di benn bokk yaakaar euh, jaajëfal la Sénégalais yi ci maturité bi ñu am ngir vote ji euh, waaye nag lu tollook nangam ci ay million ci Sénégalais bu ñu fi nekkee lu tollook million ak us lëf moo leen voteel ña ngi koy ndamoo ak di ko bàkkoo gannaaw ba ñu ngi gën a fësal ak di firndeel ni ñoom ñoo gagné wéy di nekk majorité ci assemblée nationale. waaw ba tey li ma ko waxee woon rek di santaat yàlla baax si ndam li nga xamante ni. Mimi Touré amee na ko ànd ko boo benn bokk yaakaar ndax yaakaar naa ne ndam li moom fi ne nii kenn wéranteetu ko. ndamul kan. ndamul Mimi ture kenn wéranteetu ko. d'accord am na si loo xamante ni tàllal na si loxo Sénégalais yi. Ah. Sénégal yi ti seen xob jox ko ko am na si loxo xam ne moo ko jëlal boppam. boole ko muy ndam bu rëy. ci naka léegi taxkat leen ma li ko Sénégal yi jox mooy lan. ah kay loolu rek laa si mën a leer. Ah, déedéet mënoo ko leer na mënoo ni ba wala nekk si kii continent bi ni say mbagg. ne waaw am na si Sénégal lañ tàllal loxo ñu yëkk seen kat jox leen ko waaw am si loo xam ñoo ko jëlal seen bopp muy la boole ko muy ndam lu rëy <laughs> waaw mu loolu laa que man li nga wax ni xaw ma ko <laughs> li mu wax ni xaw ma ko ah, laa mën a yem a yem bi ñëwaat ndax assemblée bi boo li mu hmm. def wax dëgg yàlla ku ko def hmm. war ngaa mën a féete hmm. waaw muy ndax bu fekkee dañ daa laaj lii nga indi lii ba indi lii waral na naa mën a félicité bu baax ak jàmbaar la. d' accord alaaji kon soxna Mimi Touré mi nekk ci bopp euh, kii boobule euh, jubilé na bii nag mooy dernier génnam gën a firndeel que ni ñoom ñoo am majorité ci assemblée nationale. waa xam nga man euh, wolof dafay wax ni ku amul li la gën a jàpp ci li fi mhm. ñoom ci li fi lañ jàpp. Mhm. maanaam ba ñuy dem dafa am loo xam ne moo nekkoon seen yaakaar ñoom Benno Bokk Yaakaar gi mhm. xam nga dafa am benn ko yóbbu gars yi doon pare benn bokk yaakaar yaakaaram tas na waaw waaw dafa montré ne yaakaaram tas na parce que Mimi Touré bi mu njëkk gën dane waxoon nañ leen ko def nañ ko waaw li mu ñu waxoon du lii dane woon am nañ majorité te amul majorité ci assemblée nationale kon li mu ñu waxoon defuñu ko ah. parce moom li mu ñu waxoon mooy dane woon am nañ majorité hmm. te tey jii ñu ngi am quatre-vingt-deux députés donc nekkul majorité mu majeur il faut mo am 83 député n'est-ce pas kon donc lolu moy li nga xamni moy ni li légui nak nag da lay wan rek fi mbir mi toll euh xam nga ku doon yaakar ay témer ak lu top mujj ci 82 amo majorité ba nopi di fecc man li ñuy fecc la xamut la la vraiment dañuy fecc ndax li ñuy daanu wala lan lañuy fecc parce que dañoo daanu parce que bu fekké ne yow bii passé ñu né la fo jógee ñoo raw ñoo raw bi passé fan nga jógee bi passé fan bi passé fan la jógee lan mooy bii passé. élec député yi passé fan lañ jóge ñoom ci cent ñaata lañ jóge cent yu teg. <laughs> te tey ñu ñëw la. quatre kon dañoo cité. ah waaw dañoo cité cité di fecc. di kay jarte fecc. yow fa nga yeggoon mënatoo faa yegg looy pàkkari. ah looy pàkkari. ok c'est que loolu mooy li kii quoi léegi nag pour gën a leeral Sénégalais yi ñu ñu xam parce que loolu tamit Sénégalais yi dañ cee war di communiquer parce que buñ gis am na ñoo xam ne buñ gisee ñii di fecc rek dañ naan gañe nañ. Mhm. parce que léeg sax xale yi laaj la nee na kon ñii dañoo gañe parce que xale yi dañoo jaare parce que bi ñu doon déglu résultat yi ak jékki-jékki gis naan ñii di fecc. mais ñoom ba ko defoon ca local ya. waaw avant résultat yi ñu génn di fecc que. waaw mais bokkul tey ñu njëkk leen ñoom Barth dañoo am lu ñu amutoon. ba tey mën nañoo fecc ñoom tey opposition bi tey ñoo waroon a feccaat parce que dañoo am lu opposition mësta am. ok te feccuñu. léegi nag ki am lu mësta am feccut. Mhm. yow ki nga xam ne la nga amoon mënatoo koo am ngay fecc sant yàlla lo lay sant yàlla ñu sant yàlla ah fecc sant yàlla c'est que c'est que man loolu moo ma jaaxal quoi c'est que bu ma xoolee benn bokk yaakaar ay reer lañ may def quoi damay jàpp ne boo dama daan waaye jii nag léegi seen bopp la ñuy eh, nax wala lan mi ngi mel ni tey mais yaa ko wax kenn sénégalais yi voté wuñ sénégalais yi voté wuñ sénégalais yi voté wuñ parce bu ñu amoon cent yu ci ay non non non c'est dama la bëgg wax lan nga ne yaa ku yor mburu lan c'est li nga doon wax gën a sénégalais yi la Abdoulaye expliqué. waaw dama ne yaa wax fii nii. waaw sénégalais yi ñëpp génn ñu voté ji. waaw kon ñee bu fekkoon dañoo am 100 yu teg. ci ay député fii sénégalais yi génn ñu moo tax ñu am 82. déedéet hmm. mais ci pourcentage bi. même bu fekkoon ne kii bu fekkoon te bi tey eh, ñi génn. Euh, voteloon nañ leen. Hmm. kon mënoon nañu am li nga xamante ni bi moom la amoon kon bu ñu nekkoon ne dañoo gañe ay Dakar gañe yenn gox yi. kon dinañ am loolu soxlawut loolu pour ñu am nombre de députés parce que nombre de députés moom du wàcc si taux bi nu mën a doon buñ ko partagé xool ni moom moo rawee gars yi nangam dina ko am kon donc loolu moom euh, nekkul loolu li ñu mënoon a wax sax mooy que ni peut-être ñi nga xam ni toog nañ bu ñu ñëwaatoon voté ñi nga xamante ne bi ñooy euh, kii benn bokk yaakaar du wax lii muy wax. te tamit am na yeneen mbir yoo xam ne am na mooy li Assane dugal léegi daal ne ginnaaw bi leen sénégalais joxe li ñu leen jox ñu am ñu sa boole lañ sa boole loolu mooy nga xam ne moom moo indi sax ñu naan quatre-vingt kii député waaye waruñu ko <laughs> waaye liñ ci boole lan <laughs> waaye waaye waaye xam nga ni yow ñoom ci seen jëmm boobu xam nañ eh, loolu waruñu ko am c'est que yii yëpp dañ koy def pour camoufler rek xam nga lii ñuy def maanaam nañ coow dëgg réer loolu la ñuy def quoi maanaam bu ñu defee lii c'est pour muur lële. waaw parce que loolu defoon audio bi nee na nañ def ni Mimi Touré wax. ñëpp nañ àndandoo di wax rek. voilà c'est ci loolu lañ ne quoi logique boobu lañ ne. Hmm. maanaam dañ ci nañu fexe nax seen bopp xam nga tey lii ñuy def ni askan wi moom xam nañ ba pare. Hmm. mënuñoo nax askan wi. Hmm. comprendre nga. tey askan wi moom am na loo xam nga sànq kii mi ngi naan yow yaa ngi feetu. luy sa yoon ci intercoalition naan amut buñ demee assemblée lii la ñuy nekk dañuy tas ñiy féete fii ngi te tamit am na ay jeux yoo xam ne buñ ko defee mën nañu nekk majorité loolu la maître kii doon wax noonu sëñ Seye xam nga li am sol mooy élection yi dafa door campagne bi dem hmm. ñu xëy Ousmane Sonko sànni benn missile hmm. daal di ne dafa dafa soxloon jàngat bi après ak li xew. li mujj c'est que pour te dire en daal pour wax la freiné nga ma. d'accord non <laughs> pour wax la daal. <laughs> Uh-huh. Euh, ñoom daal wax dëgg fa yàlla fi mu toll nii tey lii ñu fecc nii yëpp bu ñu demee ca Macky Sall yàgg la ñuy def. Uh-huh. waaw duñ fecc bu ñu demee ca Macky Sall xam nañ ni indi luñ ko la mu bëggoon de. xam nañ ni mission bi. accompli de xam nañ ni mission bii rétrograde la dellu ginnaaw bu rëy lañ def dinañ jëm nag leeral lan moo tax ñu dellu ginnaaw moo tax fecc euh, mu naqari la de <laughs> pourtant maître El Hadj Diouf fecc na fecc yu neex sax non non feccee mënta neex soo ko mën feccee mooy lan hmm. ne damay jéem a mbëllee nit ñi ba mujj gi yow yaay mbëllee sa bopp xam nga ñoom fi mu leen daal xam nga pecc moo xam ne tëgg ma déggoo ko dégguñu la dégguñu la ñuy tëgg parce que ña ngay xalaat leneen saat moo tax feetu bu dul feetu lu feet dafa metti li leen dal li leen dal li metti na de hmm? ki leen daan wayal daa ñaan ay sax waaw ka daan way <coughs> si listi xaaru ko <laughs> xam naa xam naa ci góor gaa ko fekkati ca gaar ba ah. ci gaar bi la <laughs> du ànd ak kuy du ànd ak kuy nërmeelu na eh, ku ñuy wax Maya kii Modou oh, ku ñuy wax Maya nee na caméraman bi du ñu dimbali ci kanamu Assane bii caméraman bi lu xew ci kanamu Assane bi. Maya daal moo ko wax. fii nag ay caméra robot moo fi nekk fii bi sama kanam mu may gis. xool en bi du ñu dimbali ci kanamu Assane. nee nga fixé caméra bi ci man mu may gis man rek. mais damay may muy muy wane waale gars yi tuuti rek. d'accord. les kon dinañ ñëw incha allah ci alaaj boo gisee ma dog la damaa soxla après ci lu ñu jàngat ci euh, li xew parce que bu opposition bi ñëpp àndee nekk benn bloc euh, état bi nguur gi dafay perdre assemblée nationale loolu dinañ ci ñëw ci ab jàngat euh, Déthié Fall bala ñoo ñëw ci waajoo ju doon saaga journaliste ak Ousmane Sonko ñi dem déglu Déthié mom après bi yëf yi wala laataa muy génn yeen kàddu la yëkkati demb le premier enseignement de ces résultats malgré la fraude massive notée et prouvée. Malgré l'emprisonnement des opposants, malgré l'isolement de certains, les effectifs sur d'autres, le président Macky Sall n'a plus la majorité dans ce pays. Il n'a plus la majorité au niveau de l'Assemblée où il n'a que 82 députés, malgré ce qu'il a fait dans les PV et que vous savez. Ensuite, il n'a plus la majorité en absolu. Parce que sa coalition a 1 518 000 voix, là où l'intercoalition a 1 542 000 voix. Donc Macky Sall est à 46,5% des suffrages, là où nous sommes à 47,3% des suffrages. Ce qu'il faudrait également noter comme information, c'est que la coalition Yehui Askanui n'a pas signé le PV de la Commission nationale de recensement des votes. Nous avons refusé de signer ce PV parce qu'on ne peut pas accepter ce refus d'un droit consacré par le Code électoral en son article LO 142 qui donne la possibilité à tous les représentants des coalitions de disposer de tous les documents et de pouvoir procéder à leur examen. Ce que nous avons demandé aujourd'hui au président de la Commission nationale de recensement des votes, mi ngi noonu Déthié Fall euh, dëggal na la nga xam ne moom la ñu waxoon muy gàntal bépp signature boo xam dafa jëm ci PV yi ngir di dëggal lépp luy xew-xew bu xewee ak tukkee ci élection yi nga xam ni euh, ma nga amoon dimanche bi ñu génn te ñu war a nekkoon ci wërngël bu mujj bi. kon Baye Assane euh, Déthié wax na ko ak yoon nee na président Macky Sall amul majorité ci assemblée national moo taxit ñoom seen yoon nekkul ci ay signature rek ak di dëggal lay xew ak la dul xew ndax dafa mel ni yëf ya fa mu waroon jëm ba ñu war a dëggal dañ koo dépassé wala dafa am bari loo xam ne dañ koo dañ koo bàyyi. waaw dégg nag dafa xaw a kii dafa xamul ni réew Sénégal dafa am na muy doxe te ñun président Macky Sall ñoom ak ñoom ñi bi ñu demee kenn ku nekk def li la war nit ñi def nañ li leen war. mais jinne yi def nañ leen war. yan jinne jinne dañuy wote. yaa ci ay jinne mesere ak i rab ak i rab yaa ci duggaat. nga te ngaa bàyyi jinne ak rab yi. ok fii ay nit def fi doon wote de. déet am na moom moo ne am na yoo xamante ni amuñu signature. yooyu kon mën nañ ko jëmale si mbirum jinne <laughs> dégg si dégg naa ah, jinne ñu <laughs> ngi leen amoosé am na ànd ah, kalaat ah, ñoom ni yamu si ñaari wala muy xale yi nga doon wax xale yooyu fan la ah xale yooyu montage la gaa yee ko monté gaa yi ñoo fi nekk di monté ay xale yu wate nekk fi di jal ay ay bulletin yoo xamante nii yëpp bulletin APR la ñu yulli ay saako di jël di di dugal def ko ay jinne loolu lépp montage la bu gaa yi gëm ni loolu la am la seen appel ñi leen wooteel ay nit lañ kon ñooñu montage yooyu ñu jàpp ne ay xale yu ndaw la ak saako yi nga xamante ni yóbbu nañ ko ba ci digg àll bi dajale ay nit ñuy wote di dugal appel kese loolu montage ay saako ay saako kay saako yi yoo xam dañuy dañuy jël benn saako di dugal si ay dugal si ay enveloppe di tàbbal waaw ah mais lépp montage la bu leen ko bu leen ko jàpp waaw ñi wote daal APR wote nañ yàlla dogal na la ma doon wax cinquante cinquante moo fi am am na ñu leen war a àtte ñooñu nag boo si dikkee incha allah nañ si indi ay leeral ñu leen war a àtte ñoom ñaar ñëw ci waa dikk ci ah? dikk ci xam nga cinquante cinquante na ñaari yeewee boobu benn bokk yaakaar léegi ñooñu leen war a àtte buñ demee ba leen di àtteet nañu xam ne euh, ki nga xam ne mooy benn bokk yaakaar tout moment rek mën naa am maturité te am na ko sax li tax mu koy am ndax kii bu mu indi dafa am benn ku ma mas a waxal ku nekk ensemble mu ni ma tey ku ya. hmm. demee ni président maanaam président bu mu mën a doon ci réew. mën ngaa indi pour ñu woteel la wala nga war a am kii boo dugal loo xamante ni ñenn ñi dinañ nangu ñenn ñi dinañ bañ nee na am nga droit comme ça xam nga yow yaa saa njóogoo toog ak yéen a yéen a far. Hmm. man ak ñi far te yéen bu ngeen da ngeen fër si wut ak man du sotti. ma ñëw waxtaan ak yow ya, ni la ah sa waay lii dañ ñu ko woteel de xoolal li ngeen mi sa waay ñoom saan njóogu nga ne ko déet ñoom saan njóogu si dañ koy lire. ba xam seen xel mayee ñu wote bu leen seen xel mayut ñu bañ a wote mais yow may la sa xel may nangam a ngi fi nag ci njëg waaw. waaw demoo fa mais bis boobu noonu dañ la koy fay nga wote. d'accord bu la gaa yi waxee nga ne ko ñoo bokk fuñ ne maye nag wax dëgg yàlla man. waaw lii sama xel nangu waaw loolu loolu kon bu ko neexee. lu mu dugal assemblée benn waay bu ne assemblée. waaw nee na lu mu dugal assemblée rek mën naa jàll. d'accord waaw xam naa li nga wax waaw. buñ japp ni parti limi mi danaan lii buñ ko woté rek ñepp d'accord ci dédé dañ koy lire mën nañ ah parti ando ci mais ñun and nañ ndax yéna na na part la ben rek mom nuñ ko tuddé ba en tout cas daal ñoom nañ gor Sénégal nak fi ak <laughs> président Macky Sall fi ak président Macky Sall mi ngi fi di dem ay élection day gagné day gagné wa ah oui waaw maa ngi yu mu dem xana kay mu bañ bok waye ay nañ na bok na bok sénégalais dañ nañ ci mom ñun sénégalais yi def li ñu war mais momi dana def li bëgg d'accord alaaji noo jàngatee kàddu décce yi dëggal na ni président am majorité waaye tamit nee na révisé nañ bépp signature boo xam dafa jëm ci PV yooyu di dëggal ak wax wërngal bu mujj fan la jëm. waaw xam nga opposition bi taxawaay bi ñu wax taxawaay bi ñu amee nii euh, pour man taxawaay la boo xam ne euh, taxawaay bu am solo la xam opposition bi dañu gagné te savouré wuñu victoire maanaam ba ñu génnee bisub keroog askan wi génn mm-hmm. ñu wan nit ñëpp ne leen. génn ngeen ginnaaw bi ngeen dégloo dégg ñu génn ngeen daw topp si ñu lii mooy ndam opposition bi loolu la wane eh, ñi ne woon gañe nañ ñoom bàyyi ba guddi xaaj guddi ñu wut fu ñu dem woote ngir nit ñi ñëw fekk si leen xam nga eh, Cheikh Bara nag démb wax na ci wax bu neex nga ne ki nga xam ni dafa gañe jàngat jàngat boo xam ne jàngat bu am solo la mbër bu daanee dañ koy jëli kii waa mbër mbër mi ñu daan moom mooy ñëw naan mooy ñëw naan ana vaar bi leeru nañ ma ko man dañ ma angal bee ma ngay tëb di jibile fi mu toll nag loolu mooy li nga xam ne moom lañu gis fii eh, dafa mel ni tey eh, Mimi vaar moom mooy mbër mbër moom bi ñëwee di lim naan lii ak laak lële la ñuy dégg ñu ngi ko doon dégg loolu di loo xam ne lu am solo léegi opposition bi teg wane ay failles yoo xam ne moo tax résultat yi jaar yoon ñoom ñu tàmbali seen ab xeex hmm. jëm yebaane sax ak ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy euh, ñoom ñooy kii quoi ñoom ñooy ñoom ñooy askan wi mm-hmm. waaye fi mu nii opposition bi tey kii def na li muy def te kii wax na ko léegi sànq mooy euh, kii élément bi nga teg wax na ni ay kii dina am ak mooy comme li Assane Mesere wax tamit lijjanti ñeneen ñoo xam ni dinañ ñëw jàppale mm-hmm. euh, gouvernement pour muy am majorité ci yenn yi muy bëgg a def parce que loolu ñoom ñi ngi ci parce que ñi ngi ci lijjantiwaale tamit ci waa kii yeeg yooyu te loolu ku génn rek da ngay cerefaal mbir mi maanaam da ngay gën a tax askan wi gën a bëggaat opposition bi parce que ku génn rek da dugg ci loowu cerefaal si si comprendre nga si donc fi mu toll nii opposition bi yoon wi nga xamante ne bi tey moom la nekk nii hmm. am na ndam mais ndam li soxlawul mu koy feetu léegi nii mu ko defee nii la na jël ndam li hmm. fexe ko feetu 2024 euh, ba tey jii mu jéem a Euh, bloqué li nga xam ne mooy yëf. d'accord waaw. jërëjëf alaaji euh, la cee des ci waxtu bariwul ci cinq minutes Baye Assane léegi nag résultat yi génn na euh, Benno moo jiitu ci ay député waaye bu fekkee ne opposition bi dañoo ànd Pape Djibril wàllu yeewu yeewi ak kii Thierno Alassane Sall ak ñoom ak waa Benno ak kii ñoom Pape Diop jàpp da ngaa gëm ni opposition bi du ñu daanu ci pax mi Sonko doon wax naan ñenn ci ñoom président Sall moo leen euh, sponsorisé ndax jàpp nga dina def benn bloc wuy si gars yi ñu ànd. benn bloc mënuñu ko def waaye fi leen président Sonko leen Sonko. mais président parti la ah kay. ah waaw fi mu leen di fi mu leen di kàmbal duñ fa daanu mais it euh, ànduñu président ànduñu Sonko ba tey léegi tey jii benn projet de loi mën naa ñëw. Hmm. non pas projet de loi instant bi ñoom ndax jotul. ñu dajale li ñu am ñoo ànd ah. ñu ñam gis-gis bokku ñu gis Thierno alsan sal munta and ak Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko ko yakal waxna ko kérok nee Ousmane Sonko mo dem di ñu campagne ñun président Macky Sall mu naqare ko torop ana ah, naqare do naqare nako torop ndax nit ñi mom lañ bëgg ndax xam-xam bi ñu ak coalition ak ñëpp di leen jay journalist yëpp naan ñoy xalam xam di détourné xelu nit ñi naan borom xam-xam yeeg ñu teeñeen ñu nangam nangam ñu wess benn député Ousmane Sonko lim nañ ko yóbbee nag dañoo yaakaaroon ni ñoom président la ñuy liggéeyal moo tax mënuñoo baal loolu Ousmane Sonko. ah duñ dem ci moom mënuñoo dem ci moom. d'accord duñ tamit si président ñu xool ñoom la leen si xeel seen xel may. ñu def ko mën nañoo bañ a fayeeku sax waaye man nañ see ni ah lii kat nañ ko wote. daal di koy wote d'accord. Hmm. jaajëf alaaji léegi looy xaar nag kon ci opposition bi ak seen ànd ak li ñu amee ndax dañuy bàyyi ñee ñu jiitu leen wala bu dee xeex kenn moo leen euh, taxoon a jóg ndax dañoo war a ànd waa xam nga man dama jàpp ni sooy bi alaaji kii moom kii moom mënuñoo perte ñan mm, mooy ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy euh, wala opposition bi nga xamante ni ñoo fi nekkagum maanaam dina am yeneen yu am hmm. yeneen yi am ku dem di nga leen gën a dooleel ah wala da nga leen wàññi non da nga leen di dooleel xam nga doole man doole bi mooy askan wi man laay wax waxuma ci li nga xamante ni bi moom ngeen di def. Hmm. xam nga président Macky Sall yoroon na fi majorité boo xamante ni bi bu ko neex mu doxalee n'est-ce pas. Hmm. tey jii loolu bu amee am ñoo xamante ni bi tey dem nañ wutali ki nga xam ne moom la ñu wax président Macky Sall day dëggal kàddu yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko waxoon. ne ñu ci bari ci ñoom euh, président moo leen financé. d'accord donc da koy dëggal. Hmm. su fekkente ni bi nag toog nañ ànd ak ñi nga xamante ni bi ñooy kii bu boobaa. opposition bi nekk majorité mm. loolu nag léegi dafa des ci ñoom xam nga bu njëkk ba dañ doon wër di wax di weddi mm. léegi nag dañoo war a jëf ah. xam nga période wax romb nañ ko léegi ñu ngi ci période jëf xam nga liggéey lu ma président diw la ah. nga mu naan man du ma lii nekkuma lii lii ba dem nag léegi nag ñu ne la ok léegi nekkoo lii léegi nag sénégalais yi am na ñenn ñu la wóolu gëm la même bi waxee ne loolu nga mm. ñoom gëm nañ la wóolu la voteel la léegi nag ñu ngi lay suivre

naan kaay ma wax la lu la benn kii di jox hmm. lu la askan wi di jox ko ëpp doole téeméeri junni yoon wéeru ci askan wi mooy li gën a wér d'accord kaw ngay wéeru ci keneen macha allah mi ngi noonu mbokk yi kon loolu la ñu indi woon benn vidéo bi ci des xam naa dinañ ko lebandi ndax di euh, jot na pile ah, bu ko defee ñu lebandi ko ndax euh, vidéo boobu benn waaye ci saaga journaliste ak Ousmane Sonko mooy ko daan saaga président Sall xam nga bu ñëwee di saaga ay journaliste euh, du bette waaw léegi nag euh, beneen bi ci alaaj dama koy leeral kere damaa toog yéen fii liggéey lu ma war a joxe muy kàddu yi waaw alaaj yi li ma yor ci ay demande mat na junni diglu rek mat na junni dama lay mat na junni léegi nag man damaa toog fii leeral dama ne woon cinq personnes laa jox te man cinq personnes laa joxe waaw diglu rek diglu léegi nag ku ñëw am na waaj ji ma envoyé audio xam nga si wala wax waaw munoo toog ci télé bi ni da ngay joxe ba pare may yónnee te joxoo ma ma ne waa saa yow am na ñu la fi jiitu <laughs> léegi wala ku envoyé message pour yow yaa fi jiitu te pourtant am na ñu la jiitu man dama amoon sama yëg rek di ko def wax dëgg yàlla waaye li ma doon def dañ ma cee partagé woon rek may partagé kon nag euh, cinq personnes yi ma waxoon joxe naa ko bu àdduna soppee ko su ma mënee joxe waat dinaa joxe waat alaaji mii nee na màggal ak jàmm bu ànd ak dogalu borom bi KP dina joxe ay paas. buñ duggee ci kii. safar gi buñ duggee euh, mooy joxe paas dama ne. solution mooy ah, joxe paas mooy joxe léegi. mais da koy jaarale ci KP. ah KP d'accord kon leer na. waaw solution mooy joxe ay pass mais ci application KP mais am application KP fa lañ koy jaarale. kon jeex na loolu mooy kon daw leen ngeen uti ko incha allah màggal gi ak jàmm man ngeen a am ay paas incha allah euh, ba fukki fan ak juróom-ñett yi des ci màggal gi bu ci duggee jàmm rek solution ci boppam dina génne enveloppe yi duun di ko joxe waaye nag ñi am capé ci foofu lañ koy jaarale yokk ay duun paas lañ <laughs> dama la waa di waa di waa di dama la paas moom lañ joxe nga nga amaat problème non dama ne di nga génne ay enveloppe yu duun yoo xam ne dañu koy distribuer. loolu laa wax non non non da ngay am application bi. am nga doog cee am. waaw incha allah. mi ngi noonu alaaj nee na ma yaa tànk bi yow Moodu Sarr waxtaan nañ si ba. daanaka son bi tëjal. incha allah jox ma li di wax Moodu. balaa jox ma antenne bi. Moodu waaw kon mbokk yi nagu ñuul weeg weex waag ñun suñu yoon nekku ci ñun ñu aw nag wu ñuul ñu bëy wu ñuul. Euh, technicien yi Moodu Diouf jaajëf Mouhamed Seck jaajëf Abdou Top jaajëf euh, kan Tayru non Tayru la. Ah, Tayru Sarr euh, responsable politique bu mag la Tahirou Sarr a baax doon gunge Idrissa Seck <laughs> mbokk yi jërë ngeen jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV international ginnaaw bi bàkk bi daanoo ñu fas yéene na jukkil Kawtef yi fi jot a ruuse kàllaamay wolof dila ñaan aussi nga dem abonné su fekkee abonné ko te bul faté bés de notification bi pour vidéo buñ duggal nga mën sé jot